77 644 15 euh, 67 bu ko defee ñu daal di leen jox yu am solo yooy le di euh, jus original alors mu mel ni rek li ñu fi desee bokk na seen rubrique bi lay di actualité taapen ñu jëlee jingle bi ñëwaat léegi léegi. voilà actualité politique dañ koy dooree ak li nga xamante ni rek moom mooy euh, li ñu tegoon ci ndoddal Walfadjri après huit jours de coupure Macky Sall restitue la licence de Walf TV alhamdulilah la ñuy wax rek ñu daal lay bàyyi ñu daal ci euh, waxtaanee. c'est vrai que comme je le je le président directeur général Walfadjri waxee euh, ginnaaw ginnaaw ay. jàmm. eh mm. tax dans des situations comme ça il faut toujours képp ku doon ngeen di jëm a privilégier toog waxtaan. Mm-hmm. ndax ci waxtaan lay. ñàkk déggoo. yu bari euh, euh, euh, di di di di di di ñàkk am je sais pas si on peut le dire comme ça. Mm-hmm. ci waxtaan ci lay déggoo lu ci li ci lañ nit ñi di mën di déggoo. Mm, waxtaan mooy lépp. waaye bu nekkee ni ku nekk dafa toog ci sa wet je dis ça parce que Awa. Mm-hmm. je l'ai dit n fois ici sur ce plateau là. quand je disais que ni président Macky Sall da nga war a recevoir Cheikh nga waxtaan ak moom war nga kaa mën a jur wala boo doon béy di nga ko jur di nga ko mën a jur kon je disais ici sur ce plateau que ni il faut fair en sorte de pouvoir rencontrer monsieur Cheikh Niass nga waxtaan ak moom jàppale ko jàppale ko d'abord ngir baayam mm-hmm. li ngeen séqoon taxawaay bu am solo jàmbale ko aussi ngir li ngeen séq yéen ñaar mm-hmm. balaa ay di am fii laa ko wax nga doon président de la république ci intermédiaire ay ay kilifa nga def jëfin bu rafet boobu man personnellement kontaan naa ci quand je l'ai su en début d'après-midi que di nga leen recevoir eh bien très content j'étais content parce que lii laa bëgg man ndax bi ma koy wax nii laa ko gisee woon ndax ci biir waxtaan après seen daje boobu da sentir un garçon content effectivement un garçon satisfait mel ni comme dafa dañu am lu ñu euh, comment dire ku ku ku yoroon fardeau ñu wàcceel la ko parce que xale la te dafay liggéey te il essaie de euh, euh, euh, euh défier son père. Mm-hmm. son défunt père. Mm-hmm. pour faire mieux. Mm-hmm. kon da war a bàyyi xel ci loolu pour essayer de l'aider bu caaf naree xam. nga woo ko waxtaan ak moom. mais aussi Aliou Sow bàyyi xel ci des deux cent plus de deux cent yi nga xamante ñi ngi ci biir Walfadjri di liggéey am na nu muy demee. man mënu ma wax ci ay deux cent personnes parce que su may xalaat ci ay personnes y' a de choses yoo xam ne ici dans ce pays là ay nit bàyyi nañ ci liggéey ndax coow réew mee tax. Mm-hmm. ñaata nit ñoo jàkku ci Auchan ñaata nit tey liggéeyuñu parce que dañu taal ay Auchan. Mm-hmm. j'y pense aussi. donc boo naree wax rek da ngay nekk di tegle ay milliers yu dul jeex te je ne veux pas être injuste donc man je parle de l'équilibre de Walfadjri et de ce que justement si j'avais été en face de lui war ko jox ay conseils moom Cheikh Niass ce qu'il doit faire et Macky lii mu def nii dama ci kontaan ndax dama ko yàgg di kaas dama ko yàgg bëgg ndax lii mooy dëgg te lu dul dëgg eh ben du yàgg quand je le voyais content moi j'étais mhm. content j'étais content parce que je le sentais ci oyof parce que pression la gérer une entreprise surtout une entreprise de son défunt père Cheikh Niass mënul mel ni baayam dina góorgóorlu bokkuñu yoon c'est un juriste c'est un manager aujourd'hui lii muy def nii nii mu def nii noonu la parce que toujours boo téyee yu mel nii da ngay bàyyi xel ci ñi la wër donc bu coow jibee wax gi bari nit yi di wax fu nekk moytu dafay baax xool fi ngay teg sa tànk xool ñi nga war a waxal et je suis très satisfait encore une fois et j'insiste là-dessus que vous ayez rencontré le président Macky Sall yu bari war cee mën a génn surtout par rapport à l'avenir parce que Walfadjri mooy Walfadjri la télé du peuple mmh, te télé boobee dañ ko war di sàmm te képp koo xam ne danga ko war a jéem a yàq eh bien dañ la war a tegee nee dañ la war a tegee ne képp koo xam ne da ko war a yàq dañ la war a tegee ne muy ci nguur gi muy ci opposition bi muy ci biir Walfadjri dañ ko war a protéger te kooku ñëpp am nañ ci droit. Mhm. fii ku nekk am nga lu tax nga ñëw Walfadjri ku nekk am nga lu tax ñëw donc je suis très content et très fier te lii na continuer te yamuma foofu bi ma ko daan wax. Mhm. li ma si daan wax laay yokkaat je le répète. ñu jàppale. Walfadjri ñi ñuy jox publicité yi ak insertion publicitaire yi nañ leen ci boole Walfadjri ndax loolu la mën a taxawee parce que kuy wax télé wax rajo wax kii de structure de communication sol nga ay insertion publicitaire kon à ce niveau là nañ leen gën a jàppale nañ jàppale Walfadjri ñu liggéey avancé ci lu bare bare comme sa il essaiera de faire mieux que son père parce que Walfadjri dafa war a avancé waaye coo gi moo fi war a jeex tey suba ëllëg tey suba ëllëg la niveau de responsabilité nañ ko yéegal ba ci kaw. niveau de responsabilité nañ ko couper man du ma wax di waxu couper signal. parce ah. que couper entre couper ak ñàkk couper man man man loolu ay waxtaan la. parce que ñii dañuy d'accord ñii bañ a d'accord ñii ne lii moo tax ñii ne amu leen ci droit coow gi bari ay werante rek lay doon li ma intéressé mooy le problème a été résolu et que niveau de responsabilité bi ñu yéegal ko à tous les niveaux surtout de la part de l'État ba pare sóoraale Euh, euh, kii loolu euh, mbaax bu ñu amee ñuy def ñu bañ a anticiper wala di di di benn cette spontanéité là bi ñuy jël décision tout de suite immédiatement on coupe une même si vous n'êtes pas d'accord vous État les en woo leen ngeen waxtaan leen mais jël benn décision comme ça à la hâte ce n'est pas une bonne idée ok président am tontu na Cheikh moo ko wax nee ko diw parce que Cheikh Niass moom il s'est rendu compte que ce n'était pas le président de la République waaye ministre aussi dañuy am ay kii euh, euh, de décision ay seen seen autonomie de décision à un moment donné parce que il faut que ñu assumer seen responsabilité mais li mu ko tontu moom moo ko wax nee na ko mm-hmm. euh, il est jeune comme toi peut-être que fugg bi fugg bi la demee ba jël décision boobu à at mm-hmm. parce que Macky Sall a dit ni après la ko yëg Cheikh Niass moom ko wax Euh, xëy na fugg boobu moo ko yóbbaale moo tax yu mel nii dee leen toujours di ci waxtaan dans des situations surtout quand vous avez un certain niveau de responsabilité que ça soit du côté du pouvoir et que du côté de euh, justement euh, euh, Cheikh Niass bi nga xam ne moom mooy PDG Walfadjri donc encore une fois très très satisfait très content yokk leen ci rek di ko jàppale parce que ci insertion yi la yaakaar pour lijjanti problème mu société parce que mhm. c'est Walfadjri société la dañuy liggéey dañu war a gagner xaalis c'est une entreprise aussi à la base patrimoine tout ce que vous voulez pour continuer à préserver à garder et préserver le patrimoine il faut que ñuy dund il faut que ñuy liggéey te pour ñu liggéey il faut que mu am yuy dugg yi tax ñuy liggéey c'est une société de presse ils ont besoin d'insertion suffisamment euh, publicitaire pour que ñu mën a organiser euh, seen euh, liggéey parce que encore une fois ce n'est pas du social Walfadjri c'est mhm. une entreprise dañu war a liggéey gañe xaalis euh, euh, euh, fay seen i employé eh bien seen i bénéfice séddoo ko ak seen njaboot. voilà mi ngi noonu Théo ma bàyyi nga àddu si. waaw comme li li fi mu daanalee rek laay wax. mooy mm. structures financière yi ñuy wax ni di teg. ay FONGIP ak yooyu. je crois que fii moo doon nekk seen njëriñ mooy ñëw gis société kuy créer emploi entrepreneur buy créer emploi ñu jël ko encadré jàppale ko. Mm-hmm. ak ak anam bu mu munti nekk mooy jàppale ko. pour mu moom mu mun a avancer mais su fekkee ni par exemple yow li nga xam ne ki nga xam ne mooy ñëw di def investissement mu nekk nation national nekk ñu nekk national nationaux ñoom ñu ñëw di rey seen bopp pour investir léegi bu fekkee ni environnement des affaires bi yombalewuñu ko. Mm-hmm. ah mm-hmm. kooku day xëy rek tëj ndax day découragé te loolu loolu nag fii la ñuy xaaree état état fii la war a mën a jël ku sénégalais bu jël di ñafe. pour euh, kii ñu jàppale ko pour moom mu mun a kii hmm. mais bu fekkee ne boo ñëwee nga nekk sénégalais nga ñëw di investir ñu lay teg di la teg di la teg di la teg ah bu yàggee da ngay daw de hmm. waaw loolu la daal hmm. ci bi waaw euh, nu affaire ñëwaatee parce que tamit ñëpp bu ñu doon euh, nekk si benn combat am lu ñu doon kaas suba ngoon di rek a taxoon signal bi ñëw tey bu signal bi ñëwee dañ ciy kontaan. Hmm. surtout que ñun ñi nga xamante ñoo fi ne. Hmm. mais tamit euh, dama naan euh, le mérite revient aux journalistes parce tamit gis nañ ñu ne si yenn maison gis nañ fi vendredi passé euh, ñu fi ñëw daanaka bëri na. Hmm. lim quoi. ak tamit yeneen plan yu ñu teg ne Walf signalam foog mu ñëw ñu def ko ñoom seen combat bopp. parce jàpp nañu bu weesoo Walf rek même les autres maisons ñoom Euh, ils sont menacés donc loolu taxoon ñëpp boole seen doole parce que tamit presque c'est normal mm-hmm. tey côté enseignement Théo mii day ne transport ah, transport koo laal ñeneen dañuy jóg enseignement koo laal ñeneen ñu boole seen doole tey presque tamit loolu rek lañ amoon boole seen doole bañ ñi Walf licence bi nu dem te mm-hmm. dana xaw a trop le président Macky Sall wala tam Moussa Bocar Thiam bu bu fi nekk tey ñu ne si seen nguur la licence Walf demee Mm. tey lu ñu war a def Cheikh peut-être mooy gën ko encourager gën a waxtaan ak moom gën a xool lan mooy problème yi tey Walf tamit mënul di dund avec euh, moyens yi xamante ni moom lay déployer chaque chaque mois yooyu noonu charge yu war ñu mu sekkal liggéey yëpp yor sànq ni nga ko waxee 200 personnes yu fiy liggéeyee. Mm-hmm. mu war leen yor dem ba leen nii ne boo motu bu dara changé wul licenciement day mujjee am. Ah, donc ñun bu leen licencié woon fan lañ jëm. donc au lieu nga créer emploi ay ay sumoon ngay mujjee di di am foofu noonu. Mm-hmm. donc en tout cas c'est difficile mais bon comme ni naan rek. Hmm, fu ne nii weesu na suñu ginnaaw. signal bi ñëw na kontaan nañ si ñun ñëpp ñu fiy liggéeyee. en tout mm. cas di remercier euh, ñi xam te ne ñoo dox lépp ba mu daal di sotti ndax tamit mm. euh, lépp loo mënti wax it seex signalam ñëw moo ko arrangé. parce tamit si 8 jours yooyu ñu toog moo ñu arrangé ñun ñëpp. 8 mm. jours yooyu bul xam ñaata la si 8 jours yooyu parce que tamit télé ñeneen ñëpp xam nañ si dara chaque jour day génn lu bëri bëri bëri bëri. Mm-hmm. donc 8 jours yi nga xam euh, toog nañ ko liggéeyuñu bul xam ñaata ñëw dañ koy rafetlu di rafetlu di euh, saluer également combat bi nu ko journaliste yi porté woon mm-hmm. di leen jaajëfal ak fu mu mënti nekk di wax ne rek état souvent balaa muy tëb si yenn euh, kii na jaar parce que yàlla yàlla correct journaliste yi léegi dañoo structuré am na correct mm-hmm. boo xamante ne des fois ku def loolu yoon dafay jaar mm-hmm. mën na la suspendre bu weesoo ñoom am na ay sénéra sénéra tam mën na ba léegi dox si yenn yi mais parfois dañuy gis état mën na bu fekkee tamit loolu mën nañ ko comprendre benn chose mooy Moussa Bokar bu demee bay wootee ne teggi leen lii. bu ko gars yi ne ko rek mu assuré noonu. Mm. donc foofu tamit day mel ni day am problème parce que moom it ministre ministre la ministère la yor yor na équipe boo xamante ne si ginnaawam lañ nekk di liggéey. Mm. donc bu mu assuré en tant que rek. santaane nga lii gars yi ne defuñu ko da ngay parce que autorité nga ministre nga nekkoo koo xamante ni benn genre responsable bu ndaw nga donc lépp dañ ko war a waxtaanee mm. balaa ngaa génn benn benn décision en tout cas mi ngi dellu santaat yàlla rek waaye itam remercier bu baax a baax suñu mbokk internet yi ndax mm. macha allah ñoom saa su ne dañuy gën a dooleel ah, muy YouTube muy Facebook fépp foo xamante ne rek suñuy plateforme ñu ngi fa dañ daan partager ba tey jii di commenter di like li yàqal nit alors que yaa ngi koy gën a dooleel yaa ngi koy gën a may li nga xam te ne moom mooy avancement donc mm-hmm. dañuy dellu santaat yàlla bu baax a baax Aliou Sow rek xanaa ñu daal jàll si deuxième sujet bi juste euh, pour souligner rek que ni mm-hmm. euh, euh, li ki ji bi wax sax moom ma ko fàttali mm-hmm. donc dama doon waxtaan ak suma benn partenaire suisse ci benn télévision bu bu mag bu bu bu suisse bon c'est un groupe de presse suisse mu ne ma mais Alioune bon loolu xalaatuma ko woon nag wax dëgg yàlla. Mhm. Euh, mu ne mais Alioune euh, xaw ma ndax yow loolu mos nga koo xam. parce que man quand j'étais en Europe mosuma am affaire ak waa tout la presse ak yooyu c'est au Sénégal que j'ai commencé à m'intéresser là-dessus. Mhm. et que voilà donc mu ne ma mais mais mais euh, c'est que sanctions yu mel nii yooyu day am sax dans les pays européens. daf ma wax mu ne ma loolu day am ko yaa ngi dégg parce que bu fekkee ni cadre légal bi danga nga ci kii da ngay da ngay recevoir ay sanctions mais ñun sax moo tax léegi mu may koy expliquer de. te loolu xam naa ni ñi xam war nañ ko wax parce que man je ne le savais pas mu ne ma. Mhm. Euh, boo gisee ñun duñuy dañuy ragal sax euh, euh, sanction yooyu c'est parce que moo tax ñuy gën a moytu sax di def direct. mu ne ma gis nga direct bu ñu koy def yaa a jamais très rarement ngay gis en Europe vrai direct. y toujours dañ koy yéexal de cinq minutes avant. Mhm. pour que bu erreur amee ñu mun a am temps. pour couper ko rectifier ko automatiquement. parce que y a beaucoup de risques dans les directs. moo tax vrai direct ne émission dina commencé cinq minutes wala dara dina commencé cinq minutes ñu dañ koy dañ koy bëttal euh, dañ koy bëttal cinq minutes après duñ ko wane directement nga xam ne ci diggante boobu pendant euh, cette amplitude de temps là mm. bu dee ay cinq minutes wala sept minutes ñoom dinañ mën a euh, corriger mbir mi waaye bu fekkee ne mbir mi da nga ko bàyyi direct à la seconde près des fois erreur bu ñëwee mun nga ko bañ a contrôler parce que ki ngay jëlal direct mun na wax lu ko neex mun na wax loo xam ne safaan la par rapport à l'équilibre ou par rapport à la paix sociale dans un pays te loolu doo ko tey mm. yow mii di filmer direct aussi doo ko tey donc ñoom risques yi yi ñuy pour éviter jël yenn risques yi nee nañu ñoom il pour bañ ñu leen di sanctionner il préfère parce que di nekk ci cadre légal bi ñoom dañu nañu dañuy préférer euh, au lieu muy nekk direct direct à la seconde day nekk direct cinq minutes après mmh. en réalité image mun na passé léegi wala benn benn benn benn vidéo mais cinq minutes après ngeen koy seetaan yéen c'est jamais du direct à la seconde nee na ma loolu pourquoi on le fait pas au Sénégal pourquoi vous ne le faites pas au Sénégal mmh. et moi j'ai trouvé que parce que quand on du direct on n'a pas le contrôle de li ngay def la mën a indi jukki comme comme comme problème parce que il suffit juste que euh, ci moment boobu nga euh, nga cibler benn nit mu wax wax boo xam ne dafa doy waar eh ben euh, rappelez-vous la radio des mille collines moo indi en ñetti weer pratiquement un million de Rwandais ñu rey leen tout si parce que juste ay nit ñoo ñëw taxaw waxuloo wax boobu loolu bu fekkoon direct dafa am euh, directul véritablement mm-hmm. xëy na peut que ni dinañu couper moment boobu kooku loolu di wax ci diggante bi balaa muy yegg ci euh, auditeurs yi nga xam ne euh, ñoom ñoo euh, jëloon ay seen responsabilité parce que dañu dégg ni ci rajo boobu dañu leen wax ay mbir donc am na ay wax yoo xam ne aussi responsabilité état du Sénégal la il faut que mu préserver ko parce que ce n'est pas forcément la faute de la télé ah wane ay manifestation mais di ko di ko di ah ma moo tax ñu war ñu non xam nga non man man du ma du wax ci loolu xam nga non du ma ay manifestation bu doon loolu kese gars am na ñeneen ñuy manifestation man maa joxe xalaat boobu man parce que nit ki loolu mu wax noonu man pour man loolu xel la te am na ñoo xam ne sax certainement ñi yàgg ci ay télévision xam nañu loolu am na parce que man je ne le savais pas peut-être sama expérience ci tolluwul ci benn niveau la. waaw ñuy def télé yooyu direct à la seconde c'est pas forcément une bonne idée parce que am na yoo xam ne xëy na mënoo ko contrôler yow parce que kuy def direct xam ngeen ni mënul contrôler lépp. on ne sait jamais mais mais mais mais wax bu benn wax mun na mun na mun na yàq lu bari. benn wax mun na déstabiliser lu bari une paix sociale yooyu yooyu day am ça existe donc yooyu ce serait une bonne idée comme ça ci responsabilité euh, société de presse bi la moo xam ne moom euh, balaa. Euh, bu benn wax ñëwee wóolu ne balaa moo yegg ci population yi intercepté nañ ko ci diggante cinq minutes yooyu pour mën ko effacer parce que xam nañ li lii bokkul ci cadre légal bi point barre c'est tout waaye boo jëlee sa responsabilité def direct des fois muy télé yëpp nag c'est pas forcément évident même ñun li ñuy wax ni sa des fois mun nga wax ci biir wax ni nga nga nga wax boo wax boo xam ne erreur la parce que direct bi moom moo tax mais xëy na ñun sax euh, euh, xëy na suñu niveau de responsabilité ak liggéey bi ñuy def nii xëy na tàmm nañu yoo xam ne am na yoo xam ne duñ ko ñeme dañ ci dañ ciy ki nekk ci mbedd bi moom xamul moom li ko intéressé mooy moom mooy moom kontaanul wala wala wala am na yoo xam ne neexu ko te am na yoo xam ne bëgg na ko fajal boppam ci télé bi am na occasion am direct mun na def poser benn acte boo xam ne mun na euh, kii mun na nekk euh, effet euh, euh, xamu nu ñu koy waxatee dafay dafay dafay dafay dafay ñeneen ñoo koy gis ils feront la même chose mhm. et que influence ñeneen ñi mu yàq réew mhm. te loolu après on n'aura que nos wala ay mbir pour <laughs> wala wut ay kii pour fay pour régler problème bi et comme ce comme ce qui a été fait bërki démb ci toogaay boobu waxtaan mhm. mais nag am na ay yoo xam ne day yàq te bu yàqee si foutu dina yàq lu bari ci réew mi et après c'est trop tard. et loolu il faut l'éviter. mais mais l'essentiel on sait très bien que Walfadjri lenn rek moo ko tax a jóg ah, muy euh, joxe information yi leer Théo mais pas euh, yee li nga xam te moom mooy. ay non du foofu la ñuy waxee man je parle juste de du effet direct bi. parce que yenn saa yi mënoo contrôler quand vous faites du direct vous ne pouvez pas tout contrôler. ñi ngay filmer xam loo leen ci mbedd bi. xamuloo nu fi ñuy mujje xamuloo lan la ñuy wax xamuloo lan la ñuy def xamuloo lan la ñuy capable direct boobu il suffit que mu dem rek directement c'est fini moo tax ma sama xel nekk ci loolu ma nit kooku wax noonu sama partenaire euh, euh, nga xam ne des fois nga xam ne 3 minutes après les images bi di ñëw wala vidéo bi 3 minutes la ñëw wala 2 minutes nga xam ne ci diggante boobu bu ma déggee benn affaire mun naa couper affaire bi directement dagg ko ok d'accord comprendre nga loolu day baax parce que nee naa la bu ak télé bu mu mënti doon nag booy def direct. vous mhm. n'avez plus le contrôle. Mhm. parce que surtout dans des yu bari mun na feeñ te doo ko gis parce que celui qui filme là il moom il est pour faire son c'est tout waaye nag ki war a xool li baax ak li baaxul li légal ak lu légalul li euh, code bi euh, teg li yoon yoon teg. Mhm. loolu loolu ko xam quand a du direct parce que après c'est trop tard vous rendez euh, a benn affaire moo a jaaxal quoi. c'était juste une parenthèse ministre bi man gisuma lu ñu fi wanewul lu lu yeneen suñu notre co nos nos nos confrères yi nga xam ne ils sont dans euh, yi nga xam ne ñu ngi nekk fii et ils sont de l'international lu ñu wanewul hmm. on a montré images on a montré les mêmes images on a fait même traitement qu'est-ce qu'il y est-ce que ñooñu ñooñu gën wala lenn parce que gis nañ fi ay confrères tamit yoo xam ne tamit def nañ leen loo xam ne li leen def malmené leen ñu gis fi keneen koo xam ne étranger leen ni ñu ko traité traité ko ñoonu au nom de quoi voilà xanaa ñooñu ñooñu voilà xanaa ñooñu ñooñu ñooñu gën ñun ñooñu gën juddu wala lan ba tax na ñoom euh, moom ministre bi ñooñu ñooñu def ay déclaration yu doy e, waar exactement pourquoi ministre bi ñooñu du wax ak ñoom pourtant ñooñu wane nañ les mêmes images pourquoi du wax ak ñooñu mm-hmm. et puis muy ne dañoo récidiver récidivé au nom de quoi te moom cour suprême condamné na na ñoom moom li ñu njëkkoon li ñu njëkkoon wax mhm. Mhm. pourquoi moom en tant que avocat du reconnaître décision cour suprême mhm. pour na ñun dañuy récidiver affaire yi aussi il faut ñu waxante dëgg benn côté quoi yemale yëf yi yemale yëf yi d'accord mi ngi noonu am na solo ñu ñu jàllale ci deuxième point balaa wax bi duñu xooj Aliou Sow waxtaane li nga xam te ne moom mooy report présidentiel atum 2024 bi ñu nekk euh, mu mel ni rek coowal report ba tey mi ngi fi ne cour euh, rawatina nag déclaration wala boog ay cadre yi nga xamante ni ki li di euh, Souleymane Jules Diop daan na ko yëkkati apparemment report bi du président bi kese moo ko bëggoon waaye dafa mel ñenn ci waa opposition bi ñoom ñoo doon woo président ngir mu daal di reporter bi lépp élection mu doon lu doy waar loo xamante ni moom la euh, di Souleymane moo ko waxati. ma ma je crois que li mu wax nii wax naa ko man. Mhm. nii Souleymane Jules Diop wax nii man je l'ai dit il y a trois semaines nee ñu bari d'accord nañ ci report bi waaye duñ ko bëgg a wane. mais parce que mais parce que seen stratégie la ñu teg l'essentiel c'est de s'en sortir politiquement moo tax ñu koy def. am na foo xam ne nii nga war a waxee. Mhm. am na foo xam ne nee nga war a waxee. parce que tout simplement vous êtes un homme politique et vous avez besoin de votre survie politique. Mhm. de votre survie politique et ça fait qu'effectivement vous ne euh, euh, euh, dites les choses que par rapport au gré du vent selon situation bi ak ambiance bi ni mu demee parce que imaginez bien comment pouvez-vous imaginer que ay nit jël courrier lu une quarantaine de de de de de de ou de mouvement boo waroon nekk candidat ñu ne les polier hmm. bind lettre président de la république am lu ñu ko wax ne ko yow yaay garant des institutions. Hmm. yow yaa bëgg def lii ak lii yow yaa war a def lii ak léeg-léeg bu doon suñu sagoo nga arrêté processus parce que processus bi baaxul. Hmm. ñii ñëw taxaw ne ne ñoom Alioune Tine gisul ni processus bi war na mën a jaar yoon fii ak 25 février. donc liy war. ak liy yoon mooy ñu arrêté processus bi gis ay candidats yoo xam ne jàll nañu mais nee nañu processus bi baaxul. Mm-hmm. parce que bu continuer sa sa euh, euh, crédibilité euh, élection présidentielle bi ak ki ñuy fal baaxul loolu man waxuma ko fii. Mm-hmm. si je l'ai dit mais bon wax naa ko fi. il y a deux trois semaines avant. ah waaw boobu nañ ko vaar mais yooyu intéressé wu leen <laughs> mais en même temps c'est tant mm-hmm. waaye nag. Euh, il y a trois semaines un mois fii nii ci plateau pour lañ ko waxee juste pour dire que nii rek nii y a des gens dans ce pays là gis nga hypocrisie bi am fi ci réew mi moi je suis juste capable de faire des erreurs et de me de me corriger. Mm -hmm. mais je reste persuadé d'une chose ces gens là qui nous dirigent la plupart du temps muy ñu nekk ci nguur gi muy ñu bëgg ñëw ci nguur gi en général ce sont des gens yoo xam ne dañu jóg pour nekk ci ay calcul pour rien d'autre que ni ñoom fexe ba mën cee génn après mën cee génn mooy lan mooy mën a bokk. te mën a bokk boobu moo tax ñuy jouer a ce jeu là. Mm-hmm. quand on veut quand on est persuadé report il faut comment parce que situation bi ambiguë na doy na waat te dafay entacher la crédibilité de l'élection présidentielle il y raison te xam nañu ci diggante boobu temps bi amul pour lijjanti problème yooyu nga xam ne daf fi nekk eh ben boo leen defoon élection présidentielle ba mu jàll aussi problème yu dul jeex dina fi am donc dëkk bi day continuer di instable ndax kooku di ñëw aussi lu nekk danañ ko ko yàq parce que ci hypocrisie ak ci triche ak ci am yu ñu bàyyi dëgg ci loolu la ñu falee président de la république kon mbir mi nu mu gën a leeree nii te njëlbeen bu fekkee ni dafa am ay problème yoo nit ñi dañ ko seetlu gis ko comprendre ko nit ñi taxaw ci wax ci mu am ay wax ay wax ay nit témoigner loolu la ñu war a bàyyi xel ci loolu fexe def seeni kamtalaay kàttan ba mbir mi nu mu gën rafetee bés buñ ci tolloo ñu def ko bu fekkee nag diggante mbir mi dafa xat mais comment on peut forcer comment on peut comment on peut se dire non n'importe comment nañu dem ay élection Karim Wade nee nañu du nekk candidat mhm. oui yoon moo ko wax moi je suis profondément républicain on va respecter waaye ci biir mbir bi dure mais c'est la loi mais c'est la loi mhm. mais mais bu weesoo loolu mais am na keneen koo xam ne mi ngi ci biir moom léegi nekk na xam man est-ce que fàttaliku ngeen bi ma leen fi taxaw ne leen <laughs> boobu yéen xamu li ma bëgg a wax mhm. bi ma naan waa léegi élection présidentielle bu amee léegi nii ngeen dem ba élection yi jàll ñu fal Awa Condé Awa Condé nekk président de la République mhm. Djibril Niang doon rek dajeeg benn cousin Awa Condé mu ne ko mais Awa Condé si machin et cetera léegi Awa Condé mais moom est-ce que xam nga la ah si si si mais war non Awa Condé du suisse de parce que Awa Condé mii non kii benn benn nationalité rek la am. ah non mais saa bu lox loolu waaye saa yi ñu xam ne fal nañ ko ba pare nga naan du nekkul pe Jibril génneel la mais yow kii sama cousine la Awa Condé sama cousine la génneel la ne la mais xool carte d'identité ma nga mm-hmm. kooku fal nañ ko ba pare président la république lan ngeen koy def. xam nga loolu waxoon naa ko fi. ok bu ñu ko falee ba pare après qu'est-ce qu'on fait on dit non c'est pas grave élection yi jàll na ba pare non c'est trop tard bon Karim Wade ok demal toogee ne yow yaa ñàkk chance yow yaa am ndeyu tubaab léegi yow pare nga ci parce que yow teel neex ngaa jàpp waaye ñeneen ñi ñoom ñi jàll ba kenn ki nekk président de la république am double nationalité kooku xamatul loo leen koy def un par jour da ngay nekk président de la république sax déjà nga def yenn erreur yi ci sa liggéey. ñu dem juger la pour haute trahison dàq la ndegam président la ñu war a ki ñu fal la ñu mën a def loolu waxatum laa un candidat kon pourtant ki nga xam ne dafa ne moom du nekk du nekk euh, benn nationalité la am. après bu ñu ko falee mu ndekete on se rend compte que am na ñaari nationalité kooku amu leen leneen loolu ko mënal. ba tey dafay violer juste mais teewul bu dee doole président kenn wàññi ko ba tey kooku day wéy rek di nekk. mais di def lu ko neex xam nga loolu kon logique gul waaye comme loi bi noonu la demee loi ñi koy teg des raison en général c'est très très rare muy objective dañ koy def nii pour ay x raison ndax lii nii Ablaye Wade moo ko fi defoon moo ko dugal ci constitution bi loi bi. Ablaye Wade Ablaye moom moom la doom moom moo moom la tey doomam affaire bi daal ko. moo tax euh, yii nii dañ ci war a réfléchiraat loi yenn loi yi surtout ay loi constitutionnelle balaa ñu ko teg da ngeen di réfléchir jël temps ngeen xool bu leen ko def à titre personnel mos nañ fi jël bëgg décision ci euh, euh, comi comité chargé des des institutions bu assise Euh, kii de bonne gouvernance boobu nu mu tudd euh, la charte de bon gouvernance gars yi léegi ne ñeen ñu ne léegi pour wax leen rek ni gars yi comment il comment ni ñuy décider ci biir waxtaan boobu parce que man ci mm-hmm. biir waxtaan boobu fii nii Talix Group tey siège u lañ ko doon defee mm-hmm. ñu ne <laughs> ñu ne ñu ne léegi ci biir charte bi mu am benn partie boo xam ne dañu ne léegi président de la république dootul président de la république mhm. dootul euh, euh, tey jii ni yow euh, bu ma nekkee président de la république sama doom mënumaa remplacer. bien sûr. ñu ngi sóoraale ni bu la waxee du objectif buy jël yenn décision yi. Mhm. xam nga bii assise la mais jëluñu sax seen responsable réfléchir ñu sax. ñu ne comme Karim Wade la ñu bëggoon li kaaw Karim Wade la ñu bëggoon régler ñu ne léegi président de la république sa doom amoo droit mu remplacer la. Mhm. vertical quoi. ok nit ñi mënatul nekk. Mhm. ma leen mais yéen loi bi baaxul te bay ba ñoom ja Abdoulaye ñëpp a nga foon toog. ok ma leen mais li ngeen di def ni baaxul penn moom moo doon présidente séance boobu moo tax ñun bi ñuy xeex nii fii kenn waxatul kenn waxatul jour boobu dafa tas réunion bi mu ne day dem def yoga waaw fàttaliku leen ko. arrêté réunion bi xam la moo tax xam lu xew xam lu tax mu xew ma ne leen d'accorduma ci ma ne li ngeen di def ni baaxul parce que yéen. tey jii nii Ablaye Wade place bi mu nekk Jean Paul Dias ñii laa leen ko waxee al wallahi ma ne Jean Paul Dias mooy patron wu BCG parti BCG bloc des centristes gaynde ma ne Jean Paul Dias léegi admettons léegi place su Ablaye Wade bii nii moom moo fi ci nekk mu war a mu war a mu war a fégal Barthélemy Dias nekk pour wax la ne gars yi ils ne réfléchissent même pa ma ne Barthélemy Dias nekk nekk nekk partie socialiste. tey PS nii ci élection 2012 yi boobu 2011 la fin 2011. Mhm. man leen PS léegi léegi ne ne ne euh, euh, Barthélémy Dias la ñu bëgg mu mu mu représenté leen pour élection présidentielle mais kon yéen Barthélémy Dias amul droit moment boobu def ko bokkuñu parti waaw machin coow gi bëri waaw heure bi sax jot na ma dama war a dem yoga tëj affaire yi ci laa ca gëj man. <laughs> wallaay pour wax la ne gars yi ni ñuy ni ñuy jëlee ay décisions. Mm. je suis que ni loi bii nii sur la double nationalité nii lañ ko jëlee. mais qu'est-ce que vous faites de ces Sénégalais valeureux là qui aiment tant leur pays qui sont là à l'étranger et qui lu lu sëñ sëñ sëñ kii bi doon wax noonu sëriñ bi nu mu tudd sëriñu Laayeen bi bërki démb euh, démb la démb la porte-parole bi mm. mu ne yéen da xool Karim Wade ne du Sénégalais mm-hmm. loi boobu teg noonu c'est la loi je suis républicain mais est-ce que c'est une loi juste est-ce que c'est juste Karim Wade doomu Ablaye Wade ngeen moom sax effort bi mu def mu ne moom sama parce que on ne choisit pas sa effectivement moom moom mu ne man sax léegi sax on man kon je ne je n'ai pas choisi ma famille mais je vais choisir ma nationalité Sénégal la moom laay choisir mais loolu rek loolu rek waroon nañ xalaat ni waroon nañu wut ay solution mais mais est-ce que est-ce que est-ce que hmm? mais Aliou mhm. Aliou damay laaj léegi est-ce que finalement defuñu la charrue avant les bœufs xam nga si ban côté parce que tey bu ñu toogee tey ak xaalis bu ñu dépensé yëpp ñu nar a revenir à à à à zéro recommencer et que avant pourtant même Alioune Tine boobu boobu mu doon agité ne que yi nekkul. Mhm. waaye gars yi nekk ci pouvoir bi ñoo ko doon saaga. Mhm. naan le calendrier républicain sera respecté est-ce que nekkul kon tey léegi on ne dialogue pas que tant que ça ne nous arrange pas parce su fekkee da nga nekk instinct de faiblesse nga ne acca nañu woote dialogue mhm. waaye boo nekkee instinct de de force on dialogue pas je fonce je force parce que lii waral tey ñoom seen mbër bi xam nañ ne tamit seen mbër bi mënul dem fen est-ce que du loolu moo tax tey ñu ne nañ nañ def dialogue pour bañ lu ñuy wax euh, une défaite cuisante xam nga man waxuma waxu défaite parce que défaite yaa ak kii yàlla rek xam mais ci wàllum lii report bi waaw mais même attitude bi ñoom ñëpp la c'est c'est en c'est c'est c'est inné en nous comportement boobu ma lay wax ne xam nga jox naa la kaaw euh, euh, bi ma lay wax noonu ci biir charte de bonne gouvernance bi mm-hmm. xam nga jox naa la kaaw loi constitutionnelle bi ñu wax ni nii léegi double nationalité rek te mm-hmm. conseil constitutionnel mënul sax vérifier kan mooy am double nationalité yow rek yaay ñëw bind nga def une déclaration sur loolu la lay gëmee mm-hmm. sauf bu kenn ñëwee contesté contesté affaire bi léegi moom mun na toog croiser les bras waaye nag conseil constitutionnel bu la ne loi bi baaxul conseil constitutionnel moom moom ci boppam moom bés boo nekkee président de la république sax sóoraalewul sax ni et si je le sais après moi conseil constitutionnel et si je sais que le président qu'on a élu est français finalement qu'est-ce qu'on en fait prévoir ñu sax loolu pour wàllu rek c'est des lois on prend des décisions comme ça à la et jamais de manière et jamais li nga wax ni li nga mais loolu man loolu moo ma jaaxal quoi mais c' est normal. te accusation grave yi ñu ci waa ji. mais mais mais ah ba pare moom mu ñëw rek nar ko nar nii. mais Macky Sall wax ko confiance am may xaar mu pour ñu pour xam ma loolu laa doon xaar foofu. waaw mais yi moom moom du du jël lépp. Mm-hmm. Mm. ah yow léegi ngeen bëgg jëlaat risque avec les mêmes prérogatives présidentielles au ngeen dialoguer seet président fan la war a toll léegi lan mooy rôle président la république lan mooy rôle assemblée nationale ban façon assemblée nationale la ñu bëgg am ngeen waxtaan ci loolu dialoguer ko waxtaan ci ba ba mu leer ñan ñëpp ñu am xam-xam ñi ci am xalaat muy société civile muy muy muy imam yi muy massa ñu par rapport ak ñun suñu culture ak ñuy religion yi ñu xool nan lañ si waxtaan waxtaan ba am solution mais mais ñetti weer doy na pour waxtaan ci loolu yéen ngeen ne par force loolu yëpp bëgguñu ko gis nañ dem élection kese après ngeen dem élection ngeen fal benn nit mais vous imaginez problème yi am yëpp réglé gu leen ko de après kañ ngeen koy réglé waat au lieu ngeen réglé problème mu réew mi problème mu économie problème machin non non non après ngeen di réglé ay problème institution après au de se concentrer sur l' du pays. kon yow ànd nga ci report bi ma na lan moo taxoon ma ànd ci report bi. parce que situation bi fi ñu toll woon ce n'est pas bon te ñu bari ñii doon wax léegi na ànd nañ ci rapport bi ñoom ñi ay ñoom Boubacar Camara après moi je l'ai dit avant ils ont dit exactement la même chose ils ont dit la même chose ñoom ñëpp ay ñoom ñëpp ñi demoon ñi ne te tey ñooñu xam pour la ni ndeysaan c'est au gré du vent parce que après ñoom ñi wax loolu ñoom ñoo dem ci marché bi ñenn dañuy marché pour que élection yi am le 25 mais c'est quoi cette histoire là mais comment je peux mais wala sax taxaw ngeen ne da ngeen juum léegi finalement yaa leen waxoon report léegi bëggatu leen report parce que lii moo tax ngeen expliquer sax lan moo tax. waaye da ngeen ñoom croiser nekk waa ji pris au piège ba mu la wooyee ne la kat. kaay ñu kaay ñu dialogue lii mënul nekk nga ne non respecté républicain. Hmm. waaye ñu yaakaar na yow fu mu nii comme yaa ngi waaj mbëkk mur bi comme ni mu koy wax ma ne kat naa la bàyyi musas parce que ba mu la doon nekk kaay da loolu tamit Hmm. waaw xam man euh, euh, xam nga euh, <laughs> mooy li ma la expliqué rek. Hmm. gis nga il faut que il y de la mauvaise chose gis nga may wax ni. nee leen selon mais oui mais mais c'est au gré du vent selon seen situation par rapport à leur propre survie politique ñoom réew mi gis nga yàlla rek a xam. man moom mu gëm naa ni que bëgg naa Sénégal ndax man am def naa loo xam ne dama dama wóor ni lii moo ko def ku bëggul Sénégal doo ko def waaw mais man. bu leen neexee nag après on peut en discuter mais mais man gëm naa ni man man su amee xalaat par rapport ak seen comportement yi may gis man dama gëm ni ñi faale wuñu Sénégal et ça a toujours été comme ça parce que gis nga réew boo ko bëggee am na yoo xam ne sacrifice mais yéen mais doo waxtaan ci président de la république bi nga xam ne bu ñëwee day am doole tout le temps keneen ku ñëw teewoo boo nekkee président léegi tout de suite après le moo ko may waa léegi doo assemblée nationale ñu xoolaat ban type d' assemblée nationale la ñu bëgg équilibré président do mais un président qui nomme toujours aux emplois civils et léegi le prochain là il sera comme ça yéen doo leen ci waxtaan ci dialogue bi ngeen dindi ko wàññi am na ay postes de responsabilité yoo xam ne président bu ko naree def il faut que qu'il y une commission ad hoc niveau de l' assemblée nationale mais beneen forme assemblée nationale ah, beneen forme l' assemblée nationale laa bëgg assemblée boobu ay borom xel ñoo fay te mi ngi dépendre boobu ci niñ leen di fale faleen bi ngeen changé ko léegi waxtaan leen ci type de scrutin bi baaxul boo leen ci waxtaanee ngeen ne léegi président de la république yenn poste yi comme man man par exemple man port pour man kenn président war ko jox ku parce que il suffit juste que enjeu la xaalis la képp ku jógee port nekk nekk DG milliardaire ngay doon après wax leen ndax dëgg la li ma wax du dëgg wala du dëgg la wax leen fii alxuraan yàlla rekk fi nekk dëgg la te pourtant loolu mi ngi continuer ba tey waaw loolu doone ko fi jëlee nga xam ne yenn poste de responsabilité président balaa moo ko defate dañ obligé waxtaan ak assemblée nationale une commission boo xam ne dañ koy créer biir assemblée nationale ñi nga xam ne dañu am xam-xam foofu ñu génnee leen fa teg leen mais boo indee ñetti ñetti la moitié de l'assemblée nationale xamuñu sax li xew je suis là juste parce que c'est le président qui m'a mis là. je suis là juste parce que c'est Khalifa Sall moom président qui m'a mis là. je suis là juste parce que c'est Ousmane Sonko moom président qui m'a mis là. mais loolu da ngeen changé. yéen au lieu ngeen waxtaan ci yooyu parce que boo leen ko deful président bii di ñëw il va urbi et orbi chercher à avoir une majorité à l'Assemblée nationale. te même type bi lay garder pour mën a am man bëggatuma arrêtez à un moment il faut ngeen wax dëgg fii yàlla rek a fi nekk lii nag boo leen ko deful gii dans dix ans di ngeen ko def jàpp leen ko nag. d'accord autant ngeen def ko léegi pour régler les problèmes parce que après 2024 après élection prochaine élection présidentielle da ngeen war a concentré wu ci réew mi defal leen ay institutions yu taxaw président waroon jóg di def lu la neex. Mm. am na yoo xam ne da nga bokk ak assemblée nationale fal aussi. am na solo Aliou régler ce problème là mais le président a le droit de choisir son successeur. mais le contrôle il va faire ce est-ce que le président a le droit de choisir son successeur ou c'est le peuple qui doit choisir. non le président en tant que citoyen il peut son son son son ne man kii laay voté mais yow ki ngay voté rek moom yàlla def mu doon président mais ku nekk am nga droit choisir. ku la neex hmm. mais lui euh, lui avant avant président il est citoyen. nee na la bëgg bu doon élection moom lay voté. te nee na képp ku ma déggal voté leen ko. mais les autres sont libres de faire ce qu'ils veulent. on se rendez-vous demain incha allah li nga xam ak pexeb noonu seen làmmiñ ñu rëy <laughs> merci beaucoup merci à Djibi merci à Théodore Semedo remercier équipe bu régie bi ah, Adja Penda Diallo Guèye di ko jaajëfal remercier tonton Thia ci wàllum son bi Bin Fall Kéba remercier Issakha Diagne vraiment ci jàppandal bi saa su ne mbégte contentement la ñuy am dañu ko présenté on se rendez-vous demain incha allah.